bañu joté suñu mission ci euh, mbirum sécurité luñu gouvernement bi laajte dafa di nañu gëstu ci sécurité di ci bind di ci former dañuy former euh, ay master mais également dañuy former tout ce qui est euh, segment de la population mo xam ndax ay jeunes lañu mo xam ndax ay femmes lañu mo xam ndax ay parlementaires lañu légui nañu bolé ci benn programme bo xam dañ ko jagleel collectivités territoriales yi li ñu wut lan ñëw ci région yi dem nañu déjà zone est zone est ñu fa fekk région Kédougou ak Tamba ñu dem zone sud fekk fa région Ziguinchor euh, Kolda Sédhiou dem zone nord fekk fa Saint-Louis euh, Matam ñëw fi nak légui zone euh, centre dajale fi ñenti région Kaolack Kaffrine Fatick ak Diourbel luñ ci sentu mooy jéem dajale force de défense ak sécurité Et ak ñi fi nekk euh, di fi représenter gouvernement bi maanaam monsieur le gouverneur ak ñi fi nekk aussi pour représenter population yi mooy autorités euh, locales yi boole ci également mouvement yi ñuy wax euh, organisation de la société civile pour ñu xool ñëpp seen biir naka la ñu collaborer pour que sécurité bi karange bi gën a yokk ci dëkk bi mais pour loolu am il faut ku ci nekk xam lan lay moromam di def parce que soo xamul sa def parfois ay njumte mën na fa am léegi su nekk ku nekk xam na luy morom morom def ku ci nekk ni xam lan la mooy dimbale moromam pour que Kaaraange gën a gën a développé wu ci ci région bi. loolu tax ñu ñëw fi tey lu ñu constaté mooy fépp fu ñu dem mooy nit ñi duñ duñ wax seen duñu duñu waxante duñu waxtaan seen biir waaw. policiers yi dañuy def seen liggéey gendarme def seen liggéey armée def seen liggéey maire yi def seen liggéey gouverneur yi sous préfet préfet ku ci nekk euh, def seen liggéey. waaye waxtaan ji moo moo xaw a nit ñi suñu waxtaanul yenn yi duñ ko mën a régler waaw ba ñu ñëwee daal li ñu gën a def li ñu gën a ñaax nit yi mooy ni ñuy waxtaan seen biir te bañ fa jogee fépp fu ñu jaar après ay fi day sax seen biir dangay ngay toog ñu wala ñu ah man de amoon naa tel jafe-jafe waaye ba ma wooyee diw ba ma fekk keroog ci séminaire bi réglé nañ ko loolu tax ñu ñëw waaw nit ñi xamante déjà parce que léegi ku ci nekk mun na ni ah man préfet bi tel tel tel tel tel euh, arrondissement euh, département xam naa ko monsieur le gouverneur xam naa ko euh, madame la vice-présidente conseil départemental xam naa ko tel commissaire de police xam naa ko su ma amee jafe-jafe peut-être que su ma ko woowee directement dina mën a régler problème bi.